monsieur Abdoul Malick Bousso ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, ci réew mi. maa lay fay euh, Elisabeth. gannaaw nag euh, bañ la dalalee ñuy fàttali suñu auditeurs yi ne bokk na ci bureau exécutif bu forum civil tey ñu waxtaanee ci indice Chandler Good Government bi nga xam ne fësal nañ ko bu yàggul mën naa ne vingt 26 avril. Euh, mu ñu wane ci ay dëkk yi nga xam ne seen liggéey ci wàllum bonne gouvernance xarañ na lool lu ci mel ni Rwanda mi nga xam ne Afrique moo ci jël p nekk ci cinquante troisième rang suñu dëkk nekk ci soixante onzième tey jii ban euh, jàngat nga def ci classement Sénégal. lu ci jàngat rek mooy que li forom musa wax forom dafa musa wax ne réew mi dafa am ay coppite yoo xamante ne tant que bu ci jubluwul euh, li ñuy wax bonne gouvernance moom yorin bu yorin bu mucc ay mhm. mooy yorin wu sell bu set mhm. li nga xamante la ñu yoree mbirum réew mi mooy koom ba mooy mooy mooy mooy gouvernance ba mhm. ah, dina sooxe loolu suñu indice de perception yàgg na ko génnee am na loo xamante ne xeetu guerre yoo xamante ne xeetu nu ñuy jëfandikoo alalu réew mi fekk ah, doo ci doo ci rendre compte ñu ko yoree liñ la dénk nga def ko moomeel ah, xeetu yorinu yooyu daan ko soppiwuñ ko Euh, suñu suñu classement dina sooxe ci yenn indice de perception yi muy indice euh, de bonne gouvernance muy indice de lutte contre la corruption mm-hmm. loolu moo tax ñu ne ñun forum civil dañoo yàgg euh, ñaax nguur gi ñaax acteurs yi Sénégal pour ñu liggéey ci ay transformation yu am fayda mm-hmm. mooy par exemple réforme judiciaire yi nga xamante ne dafa ñor ñu fexe ba nga xamante ne bët bi ñuy xoolee justice ci réew mi mhm. bët boobu soppeeku euh, sénégalais yi mun a naw seen justice te loolu dafa laaj ay réformes yoo xamante ne UMS ñun ak ñeneen yeneen acteurs yi ñu ngi ciy liggéey te nguur gi commencé nañ ci bàyyi nopp mhm. ci loolu yaakaar naa ne buñ ci demee ñu ci jubloo xëy na mu améliorer situation nekkinu réew mi loi à l'accès à l'information mhm. tabaxaat OFNAC fexe ba euh, encadrer pouvoir procureur de la république bu jotee yenn rapport yi eh, nga xamante ne munu ko rënk naan man sama coobare laay poursuivre wala ma ñàkk poursuivre fekke fexe ba nga xamante ne rapport bu jógee ci OFNAC di ŋàññe ñenn ñi procureur munul def lenn lu dul saisir justice pour eh, liggéey bi ci war ñu war ñu def ko mm-hmm. loolu yooyu xeetu liggéey eh, journaliste yeeg citoyen mu ne am xibaar yu yu yu yu takku yu tar ni ni ñu yore réew mi ku ñu dénk ñu am sañ-sañ laaj la liñ la dénk nag nga ko yore bu fekkee ne euh, takkal nañ la dombal tànk wala jox na jox nañ la keesu nguur mhm. wala jox la benn activité ñu war a saytu ni nga ko yore loolu tant que du ñu def loolu dañuy sooke di continuer di sooke mhm. incha allahu rabbi mhm. rapportu euh, CGGI bi dafa am fu mu tënku mu am ay critères yi nga xam ne foofu la nattee réew gu nekk Euh, bokk na ci leadership euh, prospective ak euh, li jëm ci wàllum yoon politique publique soli solidité institution yi ak yeneen ak yeneen tey jii ndax jàpp nga ne Sénégal lajj na ci secteur yooyu. Sénégal lajj na wala lajjul mais yaakaar na ne Sénégal am na ay jéego yu mu war ci def. mënuñu hmm. rek laab laabee ne amul dara lu ñu def ah, am na yuñ ci def hmm. Sénégal dugg na ci partenariat du gouvernement ouvert hmm. PGO Sénégal euh, dugg na ci ITIE euh, Sénégal euh, importé dans son droit positif le code de, de sur les finances publiques de l'UEMOA mmh. Sénégal te gën mais loolu yëpp lu ko lal loo xamante ne def lu des li mooy mmh. impunité bi naam Euh, wàññeekuwul mhm. euh, ba léegi dañu am perception kumba am ndey kumba amul ndey euh, dafa am ci traitement affaire yi affaires yi concerné ñi seq nguur gi wala ñi nekk ci kujje gi mhm. wala nekkoon ci nguur gi nekkatuñ ci loolu dafa am tuuma yu mu am ci justice moom laa doon wax tuuma yooyu nag ñu dindi ko ñu réformer justice bi mhm. indépendant ñu ñu ñu deddi ko ci loxo nguur gi nga xamante ne moo ko ŋànk à travers le ministère de la justice ak la mhm. loolu dafa laaj ay réforme réforme yooyu ñu ko defee xëy na suñu performance dina tane mhm. ci li jëm ci attractivité marché bi nga xam ne bokk na ci yi nga xam ne fa ko nattee ci wàllum bonne gouvernance tey ji euh, ñoo ngi wax bu ñu sukkandikoo ci journal L'As ci lim fësal alxamis ji euh, nee na benn géant canadien bu mine d'or euh, ñu duppee Barrick Gold Corporation euh, jamono ji dafa am benn contentieux bi ci wàllum fisc bi nga xam ne moo ko booleeg euh, Sénégal ba tax na procès bi war nañ ko mënal euh, amal foofu ca Paris ndax tey bi le procès dina tax wala sax dina am benn enjeu ci attractivité boobu li bon mun na am enjeu ci attractivité bi parce que xam nga li xew ak bari gold ñoom bi ñu ñëwee di saytu mm-hmm. dañoo amoon benn code minier bu yàgg boo xamante ne booy ñëw di seet gisagoo am na ay facilité yu rii yu ñu la doon defal mm-hmm. ñoom dañu dem nag ba fekk gis nañu gis or bu takku comprendre mm-hmm. xaalis boobu or boobu ñu war ko mun a exploiter war a indi koom bu rëy mm-hmm. ñu jël or ba ak miin ba jaay ko keneen ñu ko jaayee keneen nag ca njaay ma am na alal bu takku bu ci jóge boo xamante ne dafa war a dellu ci Sénégal ñoom ñu seeyal ko jaar la ko feneen génne ku réew mi mhm. te fayuñu impôt ya ca war Sénégal nag dafa am dëgg laaj à travers son administration fiscale ñiy wàccoog seen loi fiscale war a fay li ñu war a fay mhm. te loolu sénégalais yi ñun muy société civile muy yéen journalistes yi muy réew mi dañoo war a taxaw ànd ci nguur gi ci loolu parce que nguur gi fii moo nekk ci dëgg ni na bu nekkee ci dëgg te yow nga dénk ko alal boo xamante moo la ko war a yoral da ci ciy ànde gunge ko mu bañ cee wéet mhm. suba nag bu ko jotee nga laaj ko yore nu mu koy war a yoree ak naka la koy yoree ak fan la war a dem. Ah, ñun lii mhm. dañoo fonde ne nguur gi non seulement dafa am intérêt à agir ñun sénégalais yi dañu am intérêt taxaw ci wetu nguur gi pour ñu di dooleel nguur gi ci lu muy def tey ji mu mel ni suñu dëkk dafa dafa tëdd ci kaw euh, alal euh, ndax ñoo ngi wax or ñoo ngi wax gaz ñoo ngi wax pétrole zircon sax ñu ngi koy tudd ak phosphate euh, nan la tey ji contradiction bi am ndax suñu dëkk mën nañoo ne ndool bari na fi am na tamit chomage gu jeex contradiction boobu le noo ko jàng way li nga wax am na solo mm. dëgg la am nañu or am nañu zircon am nañu phosphate am nañu fer euh, am ñu lépp loo xamante ne war na installé ci réew mi mu nekk un pays minier mm-hmm. c'est-à-dire ci koom bi am ci Sénégal au moins vingt à vingt cinq pour cent jóge ci li nga xamante ne borom bi baaxee na mu nekk ci biir suuf si mm-hmm. mais dafa fekk noonu loolu tamit bu génnee pour alal mun cee soqe ko wala richesse mun cee soqe ko il faut que minerai brut bi ñu ko génnee ñu liggéey ko buñ ko liggéeyee lay gën a indi koom buñ ko liggéeyee lay gën a indi ay emploi buñ koy liggéeyee lay gën a meññe ci réew mi ay meññeef yoo xamante ne dina booster économie réew mi loolu yëpp amugu ko parce que amuñu ko ñu ci bëri ci ñoom bu ñu génne minerai bi lañ koy dem yóbbu muy zircon bi muy leneen ñan ñoo ci profité ñi nga xamante ne bitim réew ñoo koy jëfandikoo di ko def ay produits fii li ñuy ngañ ñi ICS ICS ICS men moo fi yore fi projet industriel hmm. lu mu génne ci suuf si mu transformé ko def ko ci ay bateau dem jaay ko bitim réew indi alal koom ci réew mi et taxawaay la GCO uh-huh. du def loolu te euh, moom zircon bi da ko yóbbu transformé ko bari def SGO or bi bitim réew lañ ko jaayee hmm. fi mu ne amul exploitation bi à salaire yi ñuy fay redevance yi ñuy fay état bi amul écosystème économique ba nga xamante ne biim eh, bi tabax na ko pour mu mun jëriñ askanu Sénégal te loolu tant que ñu ngi ci yooyu dañuy ne rek eh, eh, nu mu tuddati uude ba daal ya day dagg te pourtant mooy dafa daal yi Sénégal di tey mu mel ni ndaw yi seen dafa sooxe ñu ngi koy waxtaanee di ko laam-laame mu doon tey défi bi nga xam ne euh, Sénégal moom la taxaw temb ngir régler ko nan la ñu mën a corriger défaut bi méngale ko li nga xam ne mooy suñuy ressources naturel même si exploitation bi euh, jotagul ñu créer fii ay emploi à long terme profiter ci waaw euh, li ma léegi rek li koy li koy li liy indi euh, liggéey gone yi mun a am liggéey ci affaire mine yeeg euh, secteur extractif mooy que lii bëll ci suuf si lii jóge ci suuf si wala jóge ci géej ñu war ko mun a transformer mm-hmm. muy jën bi muy or muy phosphate muy zircon ak muy ilménite tant que mënuñu ko transformer wala def première transformation yi nit ñi mun cee tàggat seen bopp mun cee gis seen bopp mm-hmm. ci liggéey mu war a mun a indi koom mu génn lu produit brut bi ñu koy exporté foofu day sooxe. kon daal industrialisation rek moom dafa am solo. il faut quand même PME PMI mun leen fexe ba nga xamante ne ñu mun a bokk surtout PM petite moyenne industrie yi mun a liggéey ak miin yi au moins pré-base transformation bi ñu mun ko formation lan moo ciy loolu dafa dafa laaj ñu tàggat ko ne ci li nga xamante ne mooy bassin d'emploi yi dem muy ci agriculture bi muy ci pêche bi muy ci mine yi muy ci industrie bi loolu yëpp laaj na ne ñu rationaliser le formations professionnelles muy benn mhm. agence di intervenir ak mécanisme ak instrument yi nga xamante ne état bi ko jagleel liggéey bi ak ni xale yi di liggéeyee ak ni leen di doolelee wala tàggal leen ci liggéey loolu yëpp ñu rationaliser xool parce que mënuñu xalaat alal bi ñu ne nguur gi dugal na ko ci xëyu euh, ndaw ñi agence yi koy liggéey di ko toppatoo te ba léegi ñu am sentiment que dara ñu ko loolu dañ ko war a soppi te soppi bu njëkk bi mooy xayma mm-hmm. ku nekk lan nga liggéey lan moo la manqué naka lañu lay mutualiser keneen kii pour que seen taxawaay mot loolu nag dafa laaj état bi aussi wax nit ñi dëgg c'est pas à l'État de créer des emplois ou de des emplois aux jeunes loolu fiction la bu ñu dugalee loolu ci xel réew du sotti mais état nag dafa am rôle bu mu war jouer moom moo war a tàggat gunge mettre agent économique yi ci cadre boo xamante ne cadre boobu mun leen may ñu développer seen compétence mhm. créer richesse ak créer des emplois état warul mun a munul joxe emploi nit ñi te loolu euh, euh, pression yeeg vertige beeg coono yi ni mu tare dina tax nit ñi di dugg ci ay jéem ay ay guute yoo xamante ne suba pour réew mi génn ci problème lay doon. Mm-hmm. nit na wax lu mu war a mun a def. rôle lu état rôle lu état c'est de créer les conditions économiques de l'emploi société euh, euh, euh secteur privé mm-hmm. na bàyyi bootu ci ginnaawu état bi na dox ak war a investir war a wuti koom kom dañ koy wuti doo ta doo doo toog ba mu jox la ko on a un système privé inexistant mais il faut que ñu liggéey ci loolu yan politique économique la ñu war a teg ba nga xamante ni société société secteur privé bi day assumer ay responsabilités état dooleel ko dem à la conquête du Sénégal dem à la conquête de la sous-région doomu Sénégal yi commencé liggéey di expert di expertise bitim réew mais bu deful ci loolu ñu ngi nax suñ bopp. Mm-hmm. jeexaleeg euh, billet noir yi maanaam faux ménage yi gis nañ ne bëri na lool ci mim réew jeudi bi rek lu toll ci 1,5 milliard euh, saisir nañ ko ca yéen nga foog ne lan moo tax suñu dëkk ba tey malgré euh, effort yi ñuy def ngir décourager leen ñoo ngi gën a gis mbir mi fii. effort yi des na parce que boo jàppee lu mel na député ñu tuuma ko ci loolu boobu léegi euh, traitement judiciaire bi àggul day encouragé ñenn ñi te bul yaakaar bul bul fàtte ne loolu dina dugal ku nekk ci tuuxi duuna te suñu réew yi dañu nekk vulnérable Covid bi yokk vulnérabilité te du du du faux monnayage rek moo fi am d'argent ngi fi xaalis bi dugg ci réew mi tulleeg kenn xamul fu mu jóge ci trafic des des humains immigration bi day indi xaalis ñu trafiqué trafic drop trafic des armes trafic des personnes et des biens yooyu yëpp day indi ay xeetu flux financier yoo xamante ne tant que maîtriser wuñu ko réew mi mu ngi ci danger vulnérabilité boobu nag lu koy corriger mooy que ñu dooleel kuréel yi nga xamante ne ñooy saytu loolu ñu dooleel service de sécurité yi nga xamante ne parce que suñu sécurité elle est d'abord économique avant d'être de la sécurité de frontière parce que ab réew bu amul koom maîtrisul koomam koom koomam lu ko lu koy naxasaal yo naxasaay yomb mais réew moom du taxaw ba mun aar boppam wala aar askanam il faut ñu xoolaat suñu te eh, eh, crime économique yi délit économique yi on a fait des crimes mm-hmm. topp ko ni ñu ko war a toppee sanctionné ko ni ñu Bousso ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa lay remercier Elisabeth jërëjëf. Mhm. Rewmi FM. merci Fatou ñu lay dellowaat antenne